Sénégal am na liggéey amul liggéey am na liggéey amul liggéey xam nga tey instant yi branlo moo fi gën a bëri loolu tax ma ne am na liggéey parce que yenn entre pour nga dugg yenn entreprise yi il faut nga am branlo bu amul branlo doo dugg xam nga loolu tax nag bu amul branlo da toog rek xaar yàlla xam nga ñu bari ñoo ngi fii sama sama mbokk ñu bari ab comme man instant yi six ans maa ngi fi du mu nee bu ndaw laay am yaa ma gën a xam loolu mënul saa téye sans famille. gis nga zone yi ñoo ak seen bopp ñoom ñoo warul xeeb lu ñu gis liggéey bu ñu gisee fukki dërëm dem liggéey ko waaye c'est que gis nga Sénégal fii amatul gars yi lu ñuy xeeb c'est que boo xeebee looy am boo xeebee doo am dara yow da ngay jéem a dem xoolal gis nga loo gis liggéey sànce muy mené par maçon muy maçon muy muy ak liggéey bu mu mënta doon a dem liggéey ko muy gardien c'est que gis nga Sénégal fii xoolal gis nga booy toog dinaan ay damay wut liggéey bu baax Sénégal fii liggéey bu baax amu fii ana liggéey baa buy am Sénégal ah presque fii Sénégal fii xoolal gis nga ku amul xaalis am moyen xoolal mën a am liggéey bu baax presque léegi xoolal gis nga léegi boo xoolee boo xoolee gis nga xoolal gis nga place léegi dañ koy jënd place léegi dañ koy jënde man dema wax dëgg yàlla taxan ah. mhm. gis nga adduna bi léegi xoolal gis nga gis nga ku nekk zone nekk ci réew mi xoolal gis nga da ngay jéem a góorgóorlu nga jéem a fos sa jëm jéem a liggéey mhm. gis nga man ngay gis ne doomu adama man sama bopp laa yaakaar ak yàlla jeex na man yaakaaruma sama mag mhm. yaakaaruma sama baay yaakaaruma sama yaay yaakaaruma samay rak man yàlla suy borom kese laa yaakaar ak yàlla ak sama doole jeex na mhm. man yaakaar ma beneen doomu aadama buy dox ci kaw suuf mhm. comprendre nga mhm. gis nga doomu aadama boo nekkee boo nekkee doomu aadama xam ne nit nga ngay ngay zone xoolal gis nga bul yaakaar bul yaakaar alalu jàmbur ah yow nekk fii di agressé wala nga nekk fii di sàcc loolu amul benn sens. mais nañ nañ nañ nañ nañ góorgóorlu ngir yàlla dem daan seen doole xam nga y' a pas de sot métier benn métier bonul xam nga métier boo dugg yàlla su ma doole ci dimbali boo jàngul loo def dimbali say mais agression bi ñu def nii teguñu ko fenn kuñ fi agressé nan man de ku ma ci gis nga agressé dama lay jàpp ma la jàppee dama lay yóbbu aw ma ci xii li xaala waaw danaa woo force soxna leen diwa ngi agressé mi ngi tel wala wala bu la mënee jàpp sama oto daal yóbbu waaw pour jàppale leen ñoom tamit parce que tamit am na loo xam te ne vraiment neexul quoi nga ñëw liggéey sa xaalis ñu ñëw agressé sàcc la loolu neexul ci xol xam nga donc jeunes yi li ma leen di conseillé mooy nañ dem daan seen doole mooy dëgg liggéey ñàkk jëriñu moo wóor. ku ñàkkul doo am dara mais bu fekkee yow da nga bëgg toog sa keppaar yor sa café naan bu guddee nga ñëw agressif yi mais loolu tegoo ko fenn loolu loolu loolu man mënu ma comprendre bu dëkk lañ ne. bu ne bul xeeb leen na bul sàcc bul tiriyaane bul ko bul jaay say ngor ah, ah, ah, am nga liggéey liggéey laa rek. liggéey moom lu mu mun tàmmeel daal liggéey liggéey laa rek. man dama ren laa quitté école waaw parce que xam nga boo nekk ak sa mère nga nekk ak sa famille yenn problème yi da koy gis doo ko mën a faj dafa metti trop xam nga loolu il faut nga génn job dem liggéey xam nga di xaar école bi quoi école yi moom vraiment nit xam nga réussir du du école kese réussir du école kese quoi loolu laa bëgg a sama gars yi xam nga nañ génn liggéey. xale yi dañoo war a jóg dem wuti liggéey ñu liggéey parce que li nga liggéey moo la lew boo toppee lu la lewul xam nga lu lewul loo lay topp donc ñun lu ñuy wax ñun suñu réew ñun ñoo ko bokk bu bonee ñun ñoo ko bokk bu baaxee ñun ñoo ko bokk léegi balaa muy yàq ku nekk tàllal loxo ñuy ñaan ñu daan suñu doole donc ñu jaay suñu doole donc ñu am lu ñuy am donc loolu moo am solo mais boo xoolee nii rek Euh, donc xale yi ñu jóge kaw ñëw fi moo gën a am fit xale yi ñu nekk si biir donc euh, dëkk bi boo seetuloo sax parce que liggéey kenn waru ko xeeb liggéey boo ko fonkee rek yàlla fonk la li ngay war a rek si biir kër fu ngay dugal li nga li nga sàcce na la rel donc loolu lewul balaa mooy balaa mooy ñàkk a lew wutal lu nga dugal si biir kër gi